bismillah ay troisième mandat dañ ko fiy tere mhm. vox populi ñëw ak ci message yu mujj yaa ngi nii capitaine Touré mhm. xam ne ne ne feebarul parce que bàyyi bi nga xam ne moo ko yor di père adoptif am mhm. nee na ñaare yi mën a ne capitaine Touré dafa feebar feebaru xel way laa dañ ko liggéey doom ji tontu na ko nee ñi fi nee naan dafa feebar yëpp dañ ko bëgg a discréditer quoi crédibilité am daal lañ bëgg mais dara dalu ko lu mu def mooy responsable actu lu mu def dara dalu ko yes <laughs> le témoin ñëw ak ñim ci gis nga billaay borom xam-xam yi naan waa ji bàyyiwul bàyyiwul de discours layaam layaamal gi yooyu noonu yëpp stratégie la parce que réew mi yëpp ñoo man ne non waa ji neexul ba neexul mais perte na controle bi stratégie la ñu nii yi suba lañ nga dañuy dëj mu dëj tey da leen a kar ba woy benn ñaar askan wi nga xam ne dañ leen a tëj tëj a tëj tëj tëj léegi pour gars yi soulagé wu mën a nooyuwaat amaat ci moom benn sympathie mu ne lalli na état d'urgence sanitaire ba catastrophe sanitaire 19 mars ñu ne déet ni waay ma ki génnee 350 milliards laaj ma ko mu ko jaglelee. ndaw yi paa yi daawuñ dàqante xale yi newoon ci mbedd mi dégg nga looloo dégg nga looloo dégg nga looloo dégg Siré dégg nga waaye yaa su looy rek dégg loolu dégg Macky fukk MD du jëli yaas mu ex <laughs> couvre-feu fi la ko Macky delloo euh, tënkoon léegi tinki nañu magum tënki <laughs> na nooy rek na nooy ji la ne de sëré sur ça gis na Touba nag ña fa doon ña ña doon toj yëpp ñu bëree bëree bëri fi mu nekk nii caabi mu junne leen féete ginnaaw jàpp nañ leen Macky Sall la ngi ñëwee ci ndaw yi ba tey de nee na le 10 avril day organiser day convoquer premier conseil national pour affaire insertion xale yi ñu jàpp ne dañoo perdir li mairie naan ko ne gi daa mujj perdir xam nga li ma la dem na yoonam pour ñu boolewaat leen ak wàllum emploi ak lu ni mel. le quotidien ngi wax ngi ci drapeau yi ca digg ba la jëm. am na dëkk bi dañuy dëj tey. tey jii ñuy dee dañuy tëjal. l'observateur ñëw ak ñun ci. Mhm. Siré. un beau et bon titre. désordre désordre dans l'ordre. Mhm. ordre des avocats yëngu na. maître Dior Diagne ko yëngal. moo porté plainte kii di maître Bamba Cissé ak Pape Samba Sow. déglu parce que nee na message bi ñu yónnee message transféré maître Bamba Cissé moo ko yónnee client am di Ousmane Sonko sonkis tii nag ak seen chef daal di commencé tasaare message bi jooro ko yónnee jooro ko yónnee ak jooro ko bind jooro ko yónnee jooro ko bind jooro ko yónnee jooro ko bind jooro ko yónnee jooro ko bind jooro ko yónnee jooro ko bind MD jëlal yaas jooro ko yónnee jooro ko bind door ko yónnee door ko bind. <laughs> explose rek. <laughs> dégg ni joor nag lii la meree nee na xaw ma Sonko xaw ma ku ko xam xaw ma aji xaw ma ku ko xam xaw ma Ahmed Seydi Mbaye xaw ma ku ko xam message ko ñu toogal ma saa ngay taxar naa si plainte bi ak Samba nag xam nga lu ko waral. joor nee na kii moom loyauté la manqué yow tu vois. ta propre collègue ñu koy lincé di ko rey te mu leer na ne ni nuyu tuumaal joor yëpp yow la nga ne pat ba bomb bi ne bëm nit ñu doog a xam ne nekkete par Samba Sow yaa ko soo <laughs> exclusive yéene kaay yaas nañu mm. mbir mi nag saf na quatre-vingt-quatorze milliards mm. complot bi Pape Samba Sow mi di ab avocat bi bind plainte bi jabaram ak benn punkal journal bi na fa bindul turam moo tax man tudduma tur parce que bindul turam dafa ne un responsable yi gën a mag ci mouvement dolli ca Louga jabaram ak jabaru avocat bii ndeke ñoo bokk coowal quatre-vingt-quatorze milliards yi dugg li tax mu ne dafa saf ba léegi complot audio Adji Sarr ya ak Sidi Ahmed Mbaye commencé naa génn naa ko def bu ma ko defee mbaa duma ci am problème ñeng ñeng ñeng patiti patata ñu ne déet ni waay capitaine ba génn ne aju dane ko tonton lii mbaa duma ci am problème tonton te <laughs> non yaas man damay mujj bàyyi daal damay mujj bàyyi les ko yéene kaa ñëw ak ñun ci kii moom am na lu koy xaar ci ay sanction nee na moom xam na ne moom dina dem kaso dégg nga loolu xoolal double bu to mooy Mouhamed Boun Abdallah Dionne ñu ngi nii may wax muy critiquer ay Antoine Diome da de parce que kee il nous parle de terroristes moom mu ñëw ne terroriste amul dégg moo tax ana moom parce que bun mi voilà bun bun a ngi bun a ngi bun a ngi mu ne où était bun quand la Sénégal était à feu et à sang waa buñ fu mu nekkoon et à quoi joue l'expert moom daal soogu na gaay xam nga dañu Thierno Alassane Sall lu la président wax danga nga war a kooku ne ko man du ma bouton moom mu ne Thierno Alassane Sall man nag maay double bouton fa la double bouton bi jóge l'affaire du pétrole la dégg nga loolu bu na ngi bu double bouton ngi mu ngi nii. mi te xam nga bi ñuy dàq Ousmane Sonko moo fi nekkoon mais nee na ma ci dër lu ma def ba ma nekkee premier ministre ma ci dërë dërë dërë dërë critique yéen a kaay ñëw ak ci waaw kay xoolal li ma doon wax opposition bi suba dañuy dëj ci moom mu dëj tey ñii takk seen nag tey moom démb la wàccee jëlee ko séerans. Hmm. da koy jogee 24 heures yéen a kaay ñëw ak ñun ci xoola gis nga jeunesse bi journal bi nee nañu c'est les statico avec changé wul de daar bougé wul au contraire xale yi ñu ngi leen ko ñu ngi leen ko ne di leen arrêté ba léegi arrestation ñu ne fekk seen kër di leen arrêté te gis nga boo bëggee dégg-dégg moo tax mu ne ko président et si vous relisiez Jean Jaurès parce que gis nga affaire bi journal bi nee na nekkul nga rangale ay chèques. di leen may xaalis trois cent cinquante milliards gis nga góom bi ci boppam ngay jël alcool faj ko. Mhm. génnee ay idée dégg loolu mu ngi nii indi ay réforme mhm. te chômage bi buñ ko masqué mais Macky débat wu chômage bi da koy daw te waruñ ko nëpp nëppal loolay mbir mi de xale yi amuñ ci luñ jàpp koo amul loo jàpp nag wuti loo jàpp. moo waral xeex gi de. ku xiif. maa ngi lay taal def giraawaay. boo duggee ci Auchan ñu naan dañoo mer war a toj lamp yi daw te toj lamp yi sax baaxul ñu toj dugg ca biir laal meew ak ceeb ñu yëkkati ay frigo xiif te am erreur bi gën a mag. ci gouvernement bi mooy mu yaakaar ni affaire ndóol beeg sous-emploi ak chômage bi. mën nañ ko régler de manière sectorielle. seule une approche globale et systémique nañ koy régler. ah mais mënoo ko simpi ci affaire ci ci gouvernance bi. su boobaa aussi mooy lii ngay def nii rek di nga teg ay mécanismes financiers xaalis mi na sagar donc il faut changer l' approche globale systémique parce que liggéey ak yooyu dafa bokk ci benn dynamique globale. mais sérieux pour confirmer la. Macky bi mu jógee ak léegi programme am ñu mu teg est ce que boo boolee bu Abdou Diouf bu Abdoulaye Wade bi Macky romb la ko ay programme foofu sax bëri na Macky. Ah, xaalis mu teg xaalisu conseil des ministres région bu ne au minimum tu avais plus milliards. ñii trois cent cinquante quatre cent milliards waaye yooyu moom am na wala amul nañu commandement territorial bi gindi fu mu mujjee oh. ak man quinze mille milliards yi mu doon laajaat nii xaw ma fu mu mujjee Macky dafa bëgg milliards rek delloo yow yaas. maa ngi maa ngi dem. xiif baaxul de. waxoon naa la fi xiif. ba war a dee. Mm-hmm. ma ànd yow ci àll bi islam am na lu ñu sant. man mi ah, sa xàppee laa yóotu tàggu ko bi. waaw kës bi. Mhm. bi. nag ah. tuddati nañ ci avocat de. Ah, waaw waaw. daal fi mu nekk nii daal boo bëggee dégg dëgg. Hmm. ah. seen xaalis baay bi daal mantulaay lañ bëgg daal maanaam ci kaw gàttal. Mhm. ñu jox leen ko. waaw waaw moom daal boo bëggee dégg-dëgg daal. Ah, moom daal tës la ci biir tës yi. moom. waaw moom ku sàkkal baayam ku pexe xaalisu baayam ci biir tës yi. ah ñu déglu. ñu déglu ko waaw maanaam problème bi maanaam problème bi xam lan la. Mhm. maanaam ñun dañoo dëkkoon maanaam dañoo nekkoon ak sunu maanaam sunu sunu njaboot quoi. yaa may dégg. yow rek laay déglu grand. nag bu ñu nekkee maanaam papa sama sama sama papa def accident travail laaku ci bi mu gaañoo loolu ça fait 2006 la sama yaay moo doon dox dossier yi di ci dox di ci dox di ci dox ba 2010 ñu ne ko 2010 2010 boobu noonu procureur ne ko foo nga foo nga ut avocat boo xam ne ñaanal appel. si la maire bi wut avocat mu ñaanal ko appel bi mu ko ñaanalee appel procès boobu noonu maire bi muy taxaw devant le procureur di wax ak juge bi boobu avocat bi assisté si procès boobu si la si la sama yaay taxaw avoc maanaam procureur lay ko yool maanaam la moo doonoon say tànk lan nga bëggoon maire na ko ah man damaa bëggoon maanaam nga ñu fay ma trente millions boo fekk laaj nañ ko ne ko yow lan nga bëgg maire na trente milion si lañ ko renvoyé na ko demal yow nga xool lan moo dal sa xel boo ñëwee nga waxaat ñu ko si la maire bi delluwaat foofu ñu joxaat ko rendez-vous mu delluwaat fa bi mu fa demee taxawaat ak procureur procureur na ko yow laay laaj lan lan maanaam lan nga bëggoon ñu jox la comme li ñu lay fay maire ne moom trente millions la bëgg si la ñu si lañu maanaam si la ñu si la ñu si la dossier bi pare léegi bi dossier yi pare maanaam ñaari procès yooyu yëpp avocat bi ñëwu fa mais bu dossier bi dossier yi pare léegi xaalis bi si loxo avocat bi la doon jaar. léegi avocat bi 2010 boobu noonu la jox maire bi huit millions bindaloon ko sec sec la ko bind bu mu ko bindee maire bi dem pour retirer xaalis bi ñu ne ko sec bi sec baare la si la sama yaay wëñee ko waat demaat bi si bureau mu bind laat ko beneen sec boole ko maanaam benn courtier bu muy liggéeyandoo kooku moo ibbi sa kooku moo sama yaay ba ci banque bi sama yaay am compte bancaire biñ demee nag ba deux mille demee maanaam ba deux mille ba deux mille douze si la si la wax maire bi na ko leen maa bëgg nga alma sa carte parce que sa xaalis day waaj a génnaat boobu noonu moom 2010 moo ngi jox maire bi huit million te moom xaalis bi quatre pour cent la ci amoon mooy million deux cent mille parce que dossier yooyu ñaar la dañ ko joxoon benn waa tribunal jox benn sama yaay si la woo maire bi récupéré ko boobu jox na ko boobu jox na ko première partie xaalis ba pare si la récupéré kayit boobu lii wane moom quatre pour cent am ci xaalis si la ko jël moom jox maire bi foofu noonu huit millions comme lekkal na ko maanaam huit cent mille parce que moom un million deux cent lam ci xaalis bi mu ne xaalis bi fa dem côté deux mille douze dem ma topp sama yaay sama yaay yëgu ma si laa dem wax ak moom topp fekk ci bureau na ko maanaam sëñ bi yow la ñuy waxal vingt millions moo des si xaalis sa xaalis si des waroo ko lekk te dèjà rek jël nga suñu huit cent mille mu ne ma noonu loolu sa diggante ak sama yaay loolu dara nii xanaa dossier mu si sonn rek huit cent su ma ko ñaanal sa yaay moom may ma ko ma ne ko ah vingt millions nga ñu dese moom si la bàyyi ba 2012 mu ne sama yaay al ma sa quarante sama yaay al ko quarante bi mu joxee bi ko maire bi joxee quarante bi mu dem moom ci banque bi nga xam ne fa maire bi amee compte bancaire mu defaral maire bi foofu procuration parce que boobu maire bi xamul si dara bu mu defee foofu procuration moo ngi ko def maanaam le 18 12e mois deux mu versé fa 14 millions 300 mille te jël maire bi beneen compte. quatorze million trois cent mille la fa def mu bàyyi ba deux mille treize mu woo maire bi téléphone ne ko virel naa la fekk mu vir defaral virement maire bi sept millions ci compte maire bu njëkk ba xam nga maanaam ku am ku am compte bancaire ba pare jarul nga xëy dem di ci di benn banque te ci kaw loo xam ne yow maanaam tàggu woo ko moom xaalis bi 2012 la ko fa def mu bàyyi ba 2013 mu virel mu virel maire bi sept mu virel maire bi maanaam sept millions mu des sept trois cent mu bàyyi ba le neuf neuf mois deux mille quatorze mu récupéré xaalis boobu bu la ko compte banque boobu noonu waaw. léegi léegi grand. waaw grand léegi yow euh, xaalis boobu yëpp. source bi mhm. waxagoo ko ba léegi maanaam xaalis boobu nan la def ba maire bi am xaalis boobu sa papa moo doon liggéey ci benn entreprise wala. waaw papa bi dafa defoon assurance travail mu maanaam mu wàññeeku dafa defoon assurance travail mu làkk ko mu mu mu mu mu gaañu ci accident bi. waaw mu gaañu ci accident bi kanam moo ci dem. voilà léegi entreprise bi dañ koo dañ dañ dañ dañoo fay njabootam. waaw dañoo fay njabootam entreprise. 2006 la. d'accord. loolu li may wax ni bu maanaam bu ko greffé déggee wala pour maanaam procureur loolu résumé Abdoulaye Wade la woon. d'accord waaw. d'accord léegi bi xaalis bi lépp lépp xam ñaata la 13 millions 800 mille moom si la tëdd nii avocat bi. d' euh, euh, parce que parce man parce que man néew ma fi woon maa woon fee nekkoon Daaru Musi laa nekkoon si tool yaa may dégg. parce que mm-hmm. moom dafa doxoon sama diggante sama yaay maa ngi jégalu. Mm-hmm. dafa doon conseil bon naa ko sa lu sori dèjà sax bi ma nekkee foofu sax da wax sama yaay na wax ak sëñ pour bi téye ma man mu bañ a ñëw ci xam nga mais tamit xam nga yàlla moom bu demee bay feeñal dëgg rek day feeñ man si laa ñibbisi bi support si jël impôt domaine lan la lay impôt domaine kay lan lay wut ñun suñu suñu xaalis boo xam ne ni maanaam sama yaay taxoon ak procureur ba procureur wax mu koy wax sama yaay wax mu koy wax yow xaalis bi bëgg ci tëdd d'accord grand parce que parce que moom parce que boobu moom fekk na moom moom mu gardé woon comme li ma la wax ni ñaari compte bancaire yooyu mu def parce que boo xoolee kayit da nga naan benn la fekk na du benn xam man tey su deuxième tranche bi bi mu génnee. Uh-huh. deuxième tranche bi xam nga bi muy génn dafa ñëw laaj sa yaay carte waaw laaj ko carte dem ubbil ko compte ñaata la fa dugaloon 7 millions nga wax. bu mu ko foofu da ko laaj carte ne ko alma sa sa xaalis day waaj génn. maire bi jox ko carte bi mu dem banque moom banque la dem banque bi nekk Dakar. fa la dem tij defaral maire bi procuration xam nga procuration boo ko déggee maanaam bu ko nit defee da xaalis bi muy moom moo ko xam mais bu nekkoon ko jub rek day ñëw génne sa xaalis yëpp jox la nga dem nga dem quoi dama ne. Ah, moom bi mu deuxième compte bi mu ubbil maire bi dafa dugaloon foofu xaalis. waaw foofu dafa xaalis foofu 14 millions 300 mille dafa ah. moom laa lay wax dafa bàyyi ba 2013 mu jël si 7 millions viréel ko maire bi yaa may dégg boobu ñoo ngi dëkk kunu yaa may dégg mhm. si laa laaj maire bi xaw ko ërtal na ko wax ma ñaar la la jox sama yaa ne ma 10 la ma jox parce que boobu mhm. moom may dégg dox yenn façon yaa xam maanaam xamuñu lu bëri bu gisee avocat ak robam maanaam dañuy am complexe am waaye bu nekkoon yenn jigéen yenn yi pànk yi maanaam tey yegg si fii sax kon jox na ko xaalisam bu yàgg yaa may dégg waaw fekk jox na maire bi 7 millions. parce que sama yaay tam moom juddewul say étage. instant boobu noonu. oui ma instant boobu mu ko joxee 7 mhm. millions dafa téye restant xaalis bi. dafa téye restant xaalis bi. Mhm. boobu nag la wax boobu noonu fekk moom préparé na muy préparé. pour léegi bu ñu demee ba jëmi jamono mi ne moom maire bi wàccoon nañ bu yàgg. Mhm. te saa dégg dafa jël maanaam

minimum minimum euh, six millions. waaw léegi actuellement nii actuellement nii fan la affaire yi toll fi mu nekk nii nii nii. léegi moom ñun yóbbu nañ ko ci bâtonnier di avocat bi fa demee ñu plainte foofu noonu hmm. maanaam secrétaire bi nga xam ne moo hmm. hmm. ñun ñun boobu ñu ko plainte foofu noonu maanaam secrétaire bi xuloog sama yaay dañoo déglu moom si la ko bâtonnier bi convoqué jox benn lettre moom si la bind démentir ne daa jël beneen avocat bu jigéen mais imagine yow ku koo xam ne yow maanaam dañ la ne ñaanal la appel te yow appel bi ko koy ñaanalee maanaam sa si ak beneen avocat bu jigéen un fay ko un million cinq cent yaa ngi dégg wax jooju noonu moom foofu loolu la démentir léegi nag après chef de bâtonnier bi tamit bëgg ñun tamit ñu bindaat beneen lettre si la ñu si la ñu si la ñu demee conk am koo xam daf ñuy si la ñuy bu yebal ñu maanaam nañu boo leen demee maanaam da ngeen da ngeen bind plainte ngeen ngeen délégué ko président président kii bi waaw damaa bañ a tudd tur rek wax. non non jarul tudd tur continuer rek. léegi si lañ ko jox président tribunal bi bi bind plainte ko. pour maanaam mu yóbbu ñu bi conk nga xam ne moom bu ñëwee conk en tant que avocat. dañ koy mun a mu génne xaalis bi. mais bu après bu nekkee conk ñu ko foofu tribunal. bo boobaa xaw a doy waar quoi. waaw léegi lan ngeen bëgg. bi bi ñu bi ñu délégué président procureur bi nga bi nga ko ko délégué bi demul conk ñu con si la ñu convoqué foofu maag maire bi mu laajte maire bi sama yaay wax mu wax avocat bi avocat bi wax mu jox ma parole bi ma joxee parole laa génnee maanaam ñaari compte bancaire yi avocat bi maanaam yu mu yu mu bi te loolu maire bi yóbbu ko maanaam dafa denc foofu xaalis léegi bu ñu demee taxaw tey maanaam devant la baro léegi moom day génnee ay kayitam ne quatorze millions trois cent xam nga quatorze millions trois cent moom quatorze millions cinq la def mu démentir yaa may dégg ba pare ne moom deux mille deux mille dix joxaat na maire bi sept millions léegi deux mille moo léegi léegi kañ la joxaat affaire bi léegi maanaam moom a wax maanaam si si quatorze millions cinq cent yoo noonu léegi ana moom kañ la ko fan la ko joxee maire bi te xanaa bu set

moom moo ngi su côté côté. déedéet déedéet grand baax na. jaru ko jaru ko bu tudd fan la bureau bi nekk yow waxal rek. xam nañ ko bu baax léegi nag maanaam man bu ma génnee samay ñaari dossiers maanaam wan ko procureur bi procureur ko ci loolu nekkul tijjal maire beneen compte te yaa ngi ne yow maanaam léegi nag loolu yëpp boo ko boole ma loolu yëpp boo ko boole yéen fi mu nekk nii lan ngeen bëgg ñoo xam ne lu ñu bëgg maanaam lu ñu bëgg Mohamed waaw lu ñu bëgg mooy maanaam maanaam dañu jàppale ñu wol ñu ko devant la justice loolu lañu bëgg loolu lañu bëgg quoi mu jox sama sama saako sax maanaam du ma ñëw ci ay fii ni ci ay rajo di wax wala xam nga parce que ay góor yàlla lañ mun nañ jaayante quoi mais tamit doo may rakk yi tamit xam nga te alal boobu noonu bu doon sama alal man kese garaawul mais samay rakk yi jigéen dañ ci war a njëriñu maire maire day fay location dafa sonn barki Serigne Touba waaw dafa waaw sonn na trop lii man maanaam dama si woo Sénégal yëpp ñu jàppale ma te yàlla rek tax waaw waaw cas léegi yow soxna si yow suñu premier tës bi tey dañoo am gan may mun a sàll la tudd nga ne Kër Massar nga dëkk. Kër Massar ah gone gii ñu gaañ sa rakk la wala sa doom. sama rakk la sama caatu yaay. Ah. waa moom xeer lañ ko dóor walla balu fetal. bal lañ ko dóor. oh balu fetal. balu fetal. ci bopp. si jëbi. ah xanaa da koo boros. moom lu tax deewul. mu ngi hôpital nii. tàgge woon nañ ko de gis nga. ah woon nañ ko. dërëm kii ba euh, nekk nii. ci manifestation yi la. manifestation yi la. yow de nag may mun a waroon ngaa bàyyi ba suba nga doog a ñëw ndax bisu tey bii. bisu tey bii tey bisu seral. laa xawla wala ko waa waa de kii moom kii moom kii de xanaa yàlla alaaji moo yor ay dogalam xoolal ji. waaw. dem na àllaaxira nuyoo ñëwaat. Oh. kii deewul. dem deewul nii deewul. ma nga sete woo de. pour l'instant daal deewagul ndax maa fa war a nekk demaguma. yal na mucc. Ah, allah yal na mucc. Ah. yàlla def na jàmm mu génn na. alhamdulilah. alhamdulilah waaye ma nga fa ba tey. ma nga fa ba léegi. ban la day yeew di nelawaat rek di def ay crise aussi. lii lii ban jour la. jeudi. ah alxames. xool mercredi ah jeudi ba. jeudi ba. Eh, bu bees bi. ndeysaan. xanaa ñoom dañ doon dem ca gendarmerie bi. dañ doon manifester jour boobu. mooy jour manifestation. voilà. Oh. moom daal ak benn boy lañ si jot a laal. kooku moom du moom kese. côté biir bi lañ laal moom xaw ma fu mu mujjee xaw ma mi ngi dund xaw ma ngi di parce que ba léegi man maa ngi hôpital di lijjanti di dem di ñëw mais kooku ñu laal xaw ma ko xam nga ko vingt cinq ans ah mais kii moom ni mu tëddee nii day niru xale mais kii xaw na dëgër kat mm. vingt cinq ans amagul jabar non ana ana seen waa kër ñoom sama yaay mi ngi fii sama papa mi ngi fi léegi yéen yéen da ngeen jékki-jékki rek ñu ñu ñu yéen ko indi wala dañ leen a woo ne leen ñëw leen. kay nit a ñëw suñu kër annoncé ñu ko. ne dañ koo dóor bal ci bopp. ñii di nëbb naan lacrymogène la ba si yàgg ñu wax ñi lay am. mu nekk balu fetal si bopp waay. mais lii xanaa kon bal balaa la lii lii. fi mu ko ko dal nii ci bopp nii. Mhm. lii moom xanaa bu doon. bu doon reyal moom bal na day dee. kon bu doon reyal moom. waxatuñ ko instant bi waaw bal balaa moom bu dee mooy tojee nii bopp moom waaw waaw waaw bal dëgg moom alaaj kon xanaa day explosé ah, ah. mais lii dafa dafa def turu li ma si jaaxal moo leen moo leen du bal dëggantaan parce que bal dëggantaan fii dugg nii mën na sew mais fi muy génne lay lay ubbi alors bii nii fi mu duggee moo ubbeeku mm-hmm. mais fa dindi nañu ah dindi nañ ko de ay saa yi ñu foofu. fañ koy nañ koy dindee. ko. amiin na na ko yàlla na ko yàlla sauvé yan na ko yàlla sauvé. Mm, léegi la manifestation yi ci ci guddi gi la woon wala ci bëccëg wala subateel bi. bëccëg mooy jeudi soir ba ñuy kii. waaw jeudi ba waaw. Ah. àllarba la waa ji njëkkoon a dem jeudi ba. def na ko may ma ah. daal te fi mu ne kër ga kenn liggéeyul ku dul man ak sama frère bi man commerce bu ndaw kese laay def. bu ko xeeb de. petite économie bi ma doon def jour boobu jeex na tàkk tey jii nii. léegi léegi yéen kan moo kan moo ko yor nii en charge nii. man de la. yow mii. man nii. waaye ñaari kàddu sama bi. waaye ñaari kàddu jib na démb. démb ñoom ñaari ñi wax ñoom ñaar ñi wax nañ ci ñii ñu blessé. ku njëkk ki di Sonko nee na ñii dee nañ leen dàmp ñi deewul nañ leen jàppale président bi mu ñëwee nee na ñi nga xam ne dañoo am ay gaañu gaañu danañ leen jàppale ci wàllum paj bi tam dégg nga loolu. Mhm. moo tax ma lay laaj ñii sa numéro nii dégg nga la. am na kenn ku ma yónnee message nii ne ma naa ko yónnee yow sa numéro. yaa kii nag du nguur chaque ah. jour ku jëfee boo see dinañ la jox liste ordonnance koy dem jëndi. ah waaw walaay moom kay. moom kay chaque jour chaque jour. moom kay moom kay wax dëgg yàlla moom xam nañu ko kay. amiin amiin léegi ambulance moom moo ko fa jël si wala wala wala yéen. ambulance ñun fekk nañ yóbbu ko Kër masaar boo gisee vidéo bi. Mhm. dañ ko doon yéegal si kii hôpital Kër Massar foofu lañ ko doon yóbbu ñoo ñoo ko def si ambulance. Mhm. yóbbu ko Camp Thiaroye waa Camp yi ne na jàll CTO. donc bu ñu jàllee lañ ko opéré. non non le lendemain matin. lañ ko opéré. que jour boobu ñun amuñu woon fu ñu aw. mais bi ñu koy avant ñu moom conscient woon na. oui woon na mi ngi doon wax mais commencé woon na def ay crise def ay crise waaw def ay crise c'est mm-hmm. <laughs> ah, kii moom boppam bi waaye vidéo yi nag bu leen koy partagé de. Mm-hmm. ndax yii moom dafa mm-hmm. xawul dafa. ay ay nit ñoo ma ko yónnee. ah bon. tasaaroo na bu yàgg. waa Mauritanie sax gis nañ ko. tas na kay tas na kay. tas man beneen beneen laa TikTok boo xam ne leeru mais bii ba ma ko yónnee wee su ma ko yónnee woon même jour dama naan dee na. waaw. waa Kër Moussa lii moo tax ñu toog ba 4 heures du matin ñu commencé di ko statiner dee na di ko defal ay rib. ah dafa dèjà foto bàyyi ma fi. yaayam bu mu ko yëgee lu mu wax. sama yaay kay moom dafa muuma rek. walaay ndey walaay ndeysaan walaay ndeysaan la waxuma ko woon dara ba mu yegsi. métti. dafa amoon dëj. demoon ci dëj ba. Ah, kii la. doon gis bi. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. oh xoolal kii defaloon nañ ko rib ba sax. waa réew mi tam niñ gaawee ci rib. bu ñu nii rek ñu defaral la jooy yi rek. tafal la ko ak ñoo gaaw ci rek dina rey sama yaay même jour moom ñu perte. balaa nga koy bindati na nga xool li ngay bind la la ba pare. Uniparco cosmétique moo leen di may seen émission Teuss. Uniparco cosmétique vivez votre beauté exprimez votre différence Tuleteral moo leen di may seen émission Teuss Expresso mi leen indil forfait extra magique bi amul morom si marché bi moo leen di may seen émission Teuss waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu alaaji accident de travail bi waaw tës bi mhm. accident de travail bi. accident de travail. waaw accident bii nag ah tuddati nañ ci avocat de. d'accord waaw ah, waaw. daal fi mu nekk nii daal boo bëggee dégg dëgg hmm. ah seen xaalis baay bi daal mantulaay lañ bëgg daal maanaam ci kaw gàttal. Mhm. ñu jox leen ko. waaw waaw. daal daal boo bëggee dégg dëgg daal. Ah, moom daal tës la ci biir tës waaw ku sàkkal baayam ku sàkkal pexe xaalisu baayam ci biir tës yi hmm. ah ñu déglu ko waaw maanaam problème bi maanaam problème bi xamal lan la mhm. maanaam ñun dañoo dëkkoon maanaam dañoo nekkoon ak sunu maanaam sunu sunu njaboot quoi amee dégg loolu rek ah, nag bu ñu nekkee maanaam papa ah, sama sama sama papa def accident travail laa ko ci bi mu gaañoo loolu ça fait deux la sama yaay moo doon dox dossier yi di ci dox di ci dox di ci dox ba 2010 ñu ne ko 2010 2010 boobu noonu procureur ne ko foo nga foo nga boo xam da lay ñaanal appel si la maire bi ut avocat mu ñaanal ko appel bu mu ko ñaanalee appel procès boobu noonu maire bi muy taxaw devant le procureur di wax ak juge bi boobu avocat bi assisté wul si procès boobu si la si la sama yaay taxaw avoc maanaam procureur lay ko yool maanaam la moo doon say tànk la nga bëggoon maire ko ah man damaa bëggoon maanaam ngeen fay ma trente millions boo fekk laaj nañ ko ne ko yow la nga bëgg mer na trente millions si lañ ko renvoyé na ko demal yow xool moo dal sa xel boo ñëwee nga waxaat ñu ko si la maire bi delluwaat foofu ñu joxaat ko rendez-vous mu delluwaat fa bi mu fa demee taxawaat ak procureur procureur na ko yow laay laaj la maanaam la nga bëggoon ñu jox la comme li ñu lay fay maire ne moom trente million la bëgg si lañu si lañu maanaam si lañu si lañu si la dossier bi pare léegi bi dossier yi pare maanaam ñaari procès yooyu yëpp avocat bi ñëwu fa mais bu dossier bi dossier yi pare léegi xaalis bi si loxo avocat bi la doon jaar léegi avocat bi 2010 boobu noonu la jox meer bi million huit millions bindaloon ko sec sec la ko bind bu mu ko bindee maire bi dem pour retirer xaalis bi ñu ne ko sec sec baare la si la sama yaay wëññee ko waat demaat bi si bureau mu bindalaat ko beneen sec boole ko maanaam benn courtier bu muy liggéeyandoo. kooku moo ibbi sa kooku moo yóbbu sama yaay ba ci banque bi sama yaay am compte bancaire biñ demee nag ba deux mille biñ demee maanaam ba deux mille ba deux mille douze si la si la wax maire bi na ko léegi damaa bëgg nga alma sa carte d'identité parce que sa xaalis day waaj a génnaat boobu noonu moom deux mille dix moo ngi jox maire bi huit millions te moom xaas bi quatre pour cent la ci amoon mooy un million deux cent mille parce que dossier yooyu ñaar la dañ ko joxoon benn waa tribunal jox benn sama yaay. si la woo maire bi récupéré ko boobu jox na ko boobu jox ko première partie xaalis ba pare si la récupéré kayit boobu li wane moom 4 pour cent lam ci xaalis si la ko jël moom avocat jox maire bi foofu noonu 8 million comme lekkal na ko maanaam 800000 parce que moom 1 million 200 lam ci xaalis mu ne moo génn mu des kon 20 millions si laa fa dem côté 2012 benn jour maire bi fa dem ma topp sama yaay sama yaay yëgu ma si laa dem wax ak moom topp fekk ko ci bureau na ko maanaam sëñ bi yow la ñuy waxal. vingt million moo des si xaalis sa xaalis si des waroo lekk te dèjà rek jël nga suñu huit cent mille mi ne ma noonu loolu sa diggante ak sama yaay loolu dara nii xanaa dossier lu mu si sonn rek huit cent mille xanaa su ma ko su ma ko sa sayaay mu may ah, moom si la bàyyi ba deux mille douze mu ne sama yaay al ma sa quarante sama yaay al ko bi mu joxee bu ko maire bi joxe quarante bi mu dem moom ci banque bi nga xam ne fa maire bi amee compte bancaire mu defaral maire bi foofu procuration parce que boobu maire bi xamul si dara bu mu defee foofu procuration moo ngi ko def maanaam la dix huit douzième mois deux mille douze mu versé fa quatorze millions trois cent mille tëjil maire beneen compte quatorze millions trois cent mille la fa def mu bàyyi ba deux mille treize mu woo maire bi téléphone ne ko viréel naa la fekk mu vir defaral virement maire bi sept millions ci compte maire bu njëkk ba xam nga maanaam ku am ku am compte bancaire ba pare jarul nga xëy dem ci ci benn banque te ci kaw loo xam ne yow maanaam tàgguwoo ko moom xaalis bi 2012 la ko fa def mu bàyyi ba 2013 mu viral mu viral maire bi sept mu viral maire bi maanaam 7 millions mu des 7 millions mu bàyyi ba le 9 9 mois 2014 mu récupéré xaalis boobu bu la ko compte banque boobu noonu waaw. léegi léegi grand. waaw grand léegi yow euh, xaalis boobu yëpp. surtout bi mm-hmm. waxagoo ko ba léegi maanaam xaalis boobu nan la def ba maire bi am xaalis boobu sa papa moo doon liggéey ci benn entreprise wala. waaw paa bi dafa defoon accident travail mu maanaam mu wàññeeku dafa defoon accident travail mu làkk ko. mu mu mu mu mu mu gaañu ci accident bi. waaw mu gaañu ci accident bi bakkanam moo ci dem. voilà léegi entreprise bi dañ koo dañ dañ dañ dañoo fay njabootam. waaw dañoo fay njabootam entreprise. 2006 la. d'accord. loolu li may wax ni bu maanaam bu ko greffé déggee wala pour maanaam procureur loolu résumé Abdoulaye Wade la woon. d'accord waaw. d'accord léegi bi. d'accord. Euh, euh, parce que parce que uh-huh. man par ñun yóbboon nañ ko batañee des avocats parce que man new woon maa ngi woon fee laa nekkoon si tool yaa may dégg parce que mm-hmm. moom dafa doxoon sama diggante ak sama yaay maa ngi jéggulu mm-hmm. da dafa wax sama yaay ak sëñ pour sëñ bi téye ma fu man a ñëw ci Dakar xam nga mais tamit xam nga yàlla moom bu demee bay feeñal dëgg rek après day feeñ man si laay ñibbisi bi ma ñibbisee damaa demoon bu ci bureau am moom laaj ko mi ne ma xaalis moom kay lan lay wut suñu suñu xaalis boo xam ne ni maanaam sama yaay taxu nag procureur ba procureur wax mu koy wax sama yaay wax mu koy wax yow xaalis bi mu def parce que boo xoolee kayit da nga naan benn la fekk na du benn xam man tey su nekk dama laa war a jox xaalis xam naa sa compte bancaire mais dama def versé ko fa mais du ma la dem tijjil beneen compte boo xam ne léegi ci loolu laa la bëggoon laaj maanaam deuxième mhm. tranche bi bi gi xam nga bi muy génn dafa ñëw laaj sa yaay carte waaw laaj ko carte dem ubbil ko compte ñaata la fa dugaloon sept millions nga wax bu mu ko foofu da ko laaj carte ne ko alma sa sa xaalis day muy génnee moom moo ko xam mais bu nekkoon ko jubla rek tey ñoo génne sa xaalis jox la nga dem nga dem quoi am déet. d' dama ne. Ah, moom bi mu deuxième compte bi mu ubbil maire bi dafa dugaloon foofu xaalis. waaw foofu dafa xaalis foofu quatorze millions trois cent ah. millions moom laa lay wax dafa bàyyi ba deux mille treize mu jël si sept millions viréel ko maire bi yaa may dégg mm-hmm. boobu ñoo ngi dëkk kunu yaa may dégg mm-hmm. si laa laaj maire bi xaw ko ërtal na ko nii wax ma ñaar la la yow sama yaa ne ma dix la ma jox parce boobu mu may nëbb mm-hmm. xam nga fekk na boobu moom avocat yoo xam maanaam xamuñu lu bëri bu ñu gisee avocat ak maanaam dañuy am complexe am waaye bu nekkoon yenn jigéen yenn yi maanaam tey duñu yegg si fii sax kon jox na ko xaalisam bu yàgg yaa may dégg jox na maire bi 7 millions. parce que sama ma mhm. instant mhm. ba jëmi jamono mhm. bi tijjil maire bi ji beneen compte bu mu tijjil maire bi. yaa may dégg bi mu ko viré bi mu ko virélee bi maire bi léegi nga xam ne 7 millions 300 cent si la yàqu compte boobu noonu jël xaalis bi des daf ko ci poosam parce que moom parce que moom foofu bu ñu joxoon quatorze millions trois cent mille maanaam daf ñuy desel parce que vingt millions la waroon jox yaa may dégg boo calculer premier huit millions yu mu ko jox deux mille ak deux mille mu viré ko sept millions loolu léegi joxagum ok même bu leen joxoon quatorze millions yi dina leen desel minimum euh, six millions waaw actuellement nii léegi moom ñun yóbbu ko ci bâtonnier di avocat bi ñu fa demee ñu plainte foofu noonu maanaam secrétaire bi nga xam ne moo mhm. mhm. boo xam ne noonu maanaam bi xuloog sama yaay dañoo déglu moom si la ko bâtonnier bi convoqué jox benn lettre moom si la bind démentir ne daa jël beneen avocat bu jigéen mais imagine yow ku koo xam ne yow maanaam dañ la ne ñaanal la appel te yow appel bi nga ko ko ñaanalee maanaam sa si jour procès nga ne da ngaa dem jëlaat ak beneen avocat bu jigéen un fay ko un million cinq cent yaa ngi dégg wax jooju foofu loolu la démentir léegi nag après de bâtonnier bi tamit bëgg ñun tamit ñu bindaat beneen lettre si ñu si ñu si la am bu ñu demee conk am ko am daf ñu si la ñu conseillé bu yebal ñu maanaam ne ñu boo leen demee maanaam da nga da nga leen bind plainte ngeen ngeen délégué ko président président wu kii bi damaa bañ a tudd tur rek wax. non non jarul tudd tur continué rek. waaw léegi ko jox président tribunal bi bi bi ñu ko. pour maanaam mu yóbbu ñu bi conk nga xam ne moom bu ñëwee conk en tant que avocat. dañ koy mun a mu génne xaalis bi. mais bu après bu nekkee maanaam conk ñu yemale ko foofu tribunal. bo boobaa day xaw a doy waar quoi. lan ngeen bëgg. bi bi ñu bi ñu président procureur bi ñu bi ñu ko ko délégué bi demul conk konk con si la ñu convoqué foofu maag maire bi mu laajte maire bi sama yaay wax mu wax avocat bi avocat bi wax mu jox ma parole bi ma joxee parole laa génnee maanaam ñaari compte bancaire yi avocat bi maanaam yu mu yu mu bi te loolu maire bi yóbbu ko maanaam dafa denc foofu xaalis léegi bu demee ba ba tey ba demoon taxaw tey maanaam devant la baro léegi moom day génnee ay kayitam ne quatorze millions trois cent xam nga quatorze millions trois cent moom quatorze millions cinq foofu la def ci moom li mu démentir yaa may bi léegi que maanaam moom li a wax maanaam si si quatorze millions cinq cent yoo noonu léegi ana moom kañ la ko fan la ko joxee maire bi te xanaa bu joxee maire bi set jox ko joxaat ko quatorze cinq cent kon xaalis bi xanaa dèjà ëpp na yaa may dégg te foofu procureur bi ñu doon entendre moom xam nañ ko bu baax xam nañ ko moo ngi su côté côté. déedéet déedéet grand baax na. jaru ko jaru ko bu tudd fan la bureau bi nekk yow waxal rek. xam nañ ko bu baax léegi nag maanaam man ma génnee samay ñaari dossiers maanaam wan ko procureur bi procureur laaj ko ci loolu nekk lu maire beneen compte te yaa ngi ne yow maanaam ma ne loolu yëpp boo lu ñu bëgg maanaam lu waaw lu ñu bëgg mooy maanaam maanaam dañu jàppale ñu wol ñu ko devant la justice loolu lañu bëgg loolu lañu bëgg quoi mu jox ñu maanaam suñu xaalis bi mu ñu desal parce que instant maire lu muy dund dafa tar métti na trop quoi neexu ta wax man su sama sama saako sax maanaam du ma ñëw ci ay fii ni ay rajo di wax wala xam nga parce que ay góor yàlla lañ mun nañ jaayante quoi mais tamit doo may rakk jigéen tamit xam nga taalal alal boobu noonu bu doon sama alal man kese garaawul mais samay rakk jigéen dañ ci war a njëriñu maire maire day fay location dafa sonn barki Serigne Touba waaw dafa waaw sonn trop lii man maanaam dama si woo waa Sénégal yëpp ñu jàppale ma te yàlla rek tax waaw waaw waa léegi yow soxna si yow suñu premier tës bi tey dañoo am gan Maimouna Sall la tudd nga ne Kër Massar nga dëkk. Kër Massar ah gone gii ñu gaañ sa rakk la wala sa doom. sama rakk la sama caatu yaay. Ah. waa moom xeer lañ ko dóor wala balu fetal. bal ko dóor. oh balu fetal. ci bopp. si jëbi. ah xanaa da koo boros. moom lu tax deewul. mu ngi hôpital nii. tàgge woon nañ ko de gis nga. ah woon nañ ko. jërëjëf kii ba pare. Euh, nekk ci manifestation yi la. manifestation yi la. de nag mooy mën a waroon ngaa bàyyi ba suba nga doog a ñëw ndax bisu tey bii. bisu seral. bisu tey bisu seral. laa xawla wala ko waa de kii moom kii moom kii de xanaa yàlla alaaji moo yor ay dogalam xoolal waaw. dem na àllaaxira nuyoo ñëwaat. Oh, kii deewul. dem leen ñëwaat. deewul nii deewul. ma nga sete woo de. pour l'instant daal deewagul ndax maa fa war a nekk demaguma. yal na mucc. ah yal na mucc. ah allahu. Ah, na bolok yàlla def na jàmm mu génn na. alhamdulilah. alhamdulilah waaye ma nga fa ba tey. ba léegi. ban service la nekk ni réanimation day yeew di nelawaat rek di def ay crise aussi. lii lii ban jour la. jeudi. ah alxames. xool mercredi ah jeudi ba. jeudi ba. Eh, bu bees bi. Hmm. xanaa ñoom dañ doon dem ca gendarmerie bi. dañ doon manifester jour boobu. mooy jour manifestation. voilà. Oh. moom daal ak benn booy lañ si jot kooku moom du moom kese. ñu biir bi lañ laal. léegi moom xaw ma fu mu mujjee xaw ma mi ngi dund xaw ma ngi di parce que ba léegi man maa ngi hôpital di lijjanti di dem di ñëw. mais kooku ñu xam nga xaw ma ko. xam nga ans. ah mais kii moom ni mu tëddee nii day niru xale mais kii xaw na dëgër kat. 25 ans la am. 25 ans la amagul jabar. non ana ana seen waa kër ñoom. sama yaay mi ngi fii sama papa mi ngi fii léegi yéen yéen da ngeen jékki-jékki rek ñu ñu ñu yéen ko indi wala dañ leen a woo ne leen ñëw leen. kay nit a ñëw suñu kër annoncé ñu ko. ne dañ koo dóor bal ci bopp. ñii di nëbb naan lacrymogène la ba si yàgg ñu wax ñi lay am. mu nekk balu fetal si bopp mais lii xanaa kon bal balaa la lii lii fi mu ko lii ko dal nii ci bopp nii. Mhm. lii moom xanaa bu doon. bu doon reyal moom bu doon bal na day dee. bu doon reyal moom. waxatuñ ko instant bi waaw bal balaa moom bu dee mooy tojee nii bopp moom waaw waaw waaw bal dëgg moom alaaj kon xanaa day. explosé ah, ah. mais lii dafa dafa def turu. te li ma si jaaxal moo leen bal dëggantaan parce que bal dëggantaan fii dugg nii mën na sew mais fi muy génne. lay lay ubbi. alors bii nii fi mu duggee moo ubbeeku. Mm-hmm. mais fa mu logé woon dindi nañ ko extraire nañ mhm. ko. Mm, manifestation ci ci guddi gi la woon wala ci bëccëg wala subateel bi. bëccëg mooy jeudi soir ba ñuy kii. waaw jeudi ba waaw. àllarba la waa ji njëkkoon a dem jeudi ba. def na ko may ma ah. daal te fi mu ne kër ga kenn liggéeyul ku dul man ak sama frère bi man commerce bu ndaw kese laay def. bu ko xeeb de. petite économie bi ma doon def jour boobu jeex na tàkk tey jii nii. léegi léegi yéen kan moo kan moo ko yor nii en charge nii. man de la. yow mii. man mii. waaye ñaari kàddu sama bi. waaye ñaari kàddu jib na démb. démb ñoom ñaari ñi wax ñoom ñaar ñi wax nañ ci ñii ñu blessé. ku njëkk ki di Sonko nee na ñii dee nañ leen ndàmp ñi deewul nañ leen jàppale président bi mu ñëwee nee na ñi nga xam ne dañoo am ay gaañu gaañu danañ leen jàppale ci wàllum paj mi tam dégg nga loolu. Mhm. moo tax ma lay laaj ñii sa numéro nii dégg nga la. am na kenn ku ma yónnee message nii ne ma naa ko yónnee yow sa numéro. yaay kii nag du nguur chaque jour ku jëfee boo yegsee dinañ la jox liste ordonnance kooy dem jëndi. ah waaw walaay moom kay. moom kay chaque jour chaque jour. moom kay moom kay wax dëgg yàlla moom xam nañu ko kay. amiin amiin léegi ambulance moom moo ko fa jël si wala wala wala yéen. ambulance ñun fekk nañ yóbbu ko Kër masaar boo gisee vidéo bi. Mhm. dañ ko doon yéegal si kii hôpital Kër Massar foofu lañ ko doon yóbbu ñoo ñoo ko def si ambulance. Mhm. yóbbu ko Camp yi waa Camp yi ne na jàll CTO. donc bu ñu jàllee ci lañ ko opéré. non non le matin. lañ ko opéré. que jour boobu ñun amuñu woon fu ñu aw. mais bi ñu koy avant ñu koy opéré moom conscient woon na. oui woon na mi ngi doon wax mais commencé woon na def ay crise def ay def ay crise waaw mm-hmm. ah, mi kii moom boppam bi waaye vidéo yi nag bu leen koy partagé de. Mm-hmm. ndax yii moom dafa xawul dafa. ay ay nit ñoo ma ko yónnee. ah bon. tasaaroo bu yàgg. Mm-hmm. waa Mauritanie sax gis nañ ko. ko <laughs> ah, tas na kay tas na kay. tas na kay man beneen beneen laa yoroon TikTok boo xam ne leeru mais bii ba ma ko yónnee wee su ma ko yónnee woon mhm. même jour dama naan dee na. waaw. waa Kër Moussa lii moo tax ñu toog ba 4 heures du matin ñu commencé di ko statiner dee na di ko defal ay rib. ah dafa dèjà foto bàyyi ma fi. parce que vidéo bi bu mu koy yëgee lu mu wax. Ndiaye kay moom dafa muuma rek. walaay nde walaay ndeysaan walaay ndeysaan. confrontation la waxuma ko woon dara ba mu yegsi. métti. dafa amoon dëj. demoon ci dëj ba. Ah, kii la. daa doon gis photo bi. Mhm, mhm, mhm. oh xoolal kii defaloon nañ ko rib ba sax. waa réew mi tam niñ gaawee ci rib. ban ah, site ñu nii rek ñu defaral la jooy rek. tafal la ko ak ñoo gaaw ci rib. Ah, dina rey sama yaay même jour moom ñu perte. balaa nga koy.